léegi ne bu leen nopp ñuy dugg yi xale yi bari na lu ñuy layee seeni ndey ak seeni baay lu naan ñoo leen tax di tukki waaye dañuy wax rek waaye dañuy wax rek dañoo teel bëgg àdduna rek dañoo teel a bëgg nii laa ko defee ak nii laa ko mëne ak nii laa ko mëne yooyu rekk leen teel jàpp nee yooyu rek moo teel a jàpp xale yi te xale te xale warta teel gis loolu warta teel ñuy xool ñu ñuy xool ñu amee teraanga ñu amee teraanga daanaka koo ci gis daanaka koo ci gis am na ñeent fukki at. am na ñeent fukki at. wuti juróom wuti juróom fukk. ñooñu la xool li ñu am. ñooñu la li ñu am. ñooñu li ñu am. ñooñu li am. bañ bañ doonee ndaw. bañ doonee ndaw. la ñu tàmbali di yaxantu. la tàmbali ñooñee la ñu tàmbali di yaxantu. lu ñu am lu ñu am. mos ca ñoom ay seeni seeni seeni waajur. mos ca ñe seeni waajur. la ca des ñu denc ko. la ca des ñu denc ko. di ko yaxanal di ko yaxanal di ko dajale di ko dajale. muy dox muy ba dem ba mët dara. ba dem ba mët dara. ñoom ñu def ci dara. ñoom ñu def ci dara. ñoom nag buñ bëggee xool loolu. nag buñ bëggee xool te amuñu ñaar fukki at. te amuñu ñaar fukki amuñu fanweeri at. amuñu fanweeri at. bëgg a xool bëgg a xool li borom am li borom yi juróom yi am ñoom ñu ñu bëgg am nag ci te doyewuñ ko dara bëgg a rek te doyewuñ ko dara nag loolu bëgg a noos rek maa toll nii maa man lii maa nii laa ko defee nii laa ko defee yooyu dong nag moo leen yëgal seen ndey seen bàyyi waaye seen ndey ak seen bàyyi yi tudd dañ koy dañ koy laye rek yéen day bu leen def noonu yéen dee leen dajale ndànk rek lu ngeen am yaxanal ci aslëb bu leneen ñëwee fekk ko fa ba mu lim bu neexa defe dara bu neexa defe loolu sëriñ bi nee na mooy ak nit te mooy yoon moo jaadu itam waaye juddoo ko. waaye juddoo ko. di woo xam ne bii ñi ko mel. di xool lim ak melaw woo xam ne ñi ko mel. bu yàgg lañ tàmbali di wut dara bu yàgg lañ tàmbaloo di dara. di ko dajale di ko dajale. loolu du yoon. nee na sëriñ bi neen loolu yoon. maa ngi leen bi nee leen di nag. yàlla sàmm leen. te yeggale leen li ngeen bëgg a yegg barke borom Tuuba